lat coro buna komar buya buna buna kumbalam du jënde caam njak aram sama ma dugu ndoob dak demel rendi teeñ tere walo nelaw yaay mbay mbooj lay jooye barak bi ci walo yaay ndey kumba sama waaja nelaw na sama lingeer be ajaratu nday rokoya mbooj ah bàyyi jooyul yëgul ci nday jude ja dara dara dara day kumba ne na jooyul yaaye nday rokoya mbooj journaliste bu mag bi ci réewum conseiller à la de la République baay Ablaye Mbooj baay nakar la fi bàyyi waaye bàyyi fi gàcce ajar Fatou Gueye sa yaay gàcce nga la ma yaay paap mi may jooyo barak bi ci waalo ah waalo waalo waalo waalo kondaama jin leen kondaama ndeysaan kumbalam du kumbalam du jande ca waalo ngee ne leen kon daama tubaarkàlla macha allah asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina asalaamaaleykum waa diaspora bi ñëwaat nañu ci ëttu kër ndaanaan yi tubaarkàlla macha allah fii ci Pikine fekk si ku baax fekk si ku am maanaa fekk si artiste bu mag fekk si tubaarikàlla macha allah géwélu ministre de la femme Ndeye Saly Diop waaw gor soosu nga xam ne dafa gënal sama ndey ji ajaratu nday Faatu Njaay ba mu gën mhm. tey nday Faatu Njaay maam ma la ñu set si yaayu boogaa yaay ngoy caali waaw yaa booy nuyu naa la maa ngi lay fay ndeysaan <laughs> ngoy caali sama xol sedd na ndeysaan ginnaaw nag bu ñu sante yàlla jullu ci Seydina Muhammad mhm. di sant sëriñ Fàllu Mbàkke di ko santaat di ko santati di sant njabootu sëriñ Bamba gépp nag mhm. di ci jiital sëñ Muntaxa borom mbég mi hmm. ñoo ngi kontaan bu baax ci ñëw bi nga ñëw nag tey ci kër gi fii ci Pikine nag Pikine Nord <laughs> sama xol sedd na guy nag mbay waaw sama xol sedd na tubaarkàlla dégg ngeen sama xol sedd ndax te ku dégg ni mu ko waxee xam ne loolu lañu suñu ndey ju gore ñu ñu feggoon ak mbay bu suñu bàyyi alaaji njaga mbay nee naa leen ëttu kër ndaanaan yi concept bi nii mu tëddee mooy paap rek lañ ci àndal. Mhm. di ko xoole baayam bi di ko xoole ji njaga tubaarkàlla macha allah ànd ak moom ceetu kër ndaanaan yi tey nag ñu fekk si ndaanaan mhm. ndaanaan lu mat ndaanaan ndaanaan loo xam ne kenn doot ko présenté ti li mu def Sorano def ko ci réew mi def ko ci askan wi def ko ci xale yi waaye nag def ko ci doom yi waaye nag def ko ci lii nga xam ne mooy macha allah traditionnel di ko way doon nag tubaarkàlla macha allah waykat boo xam ne kenn dootu ko présenté ti sama yaay ndey faatu nu mu def ba doon artiste ak fu mu jaar ba way ak ku mu aw waaw ak ku ko njëkk jox micro ni ko waaw ak ku mu àndal <laughs> xanaa ngooy nag ndeysaan nag ginnaaw yàlla nag ak suñu barke baay suñu liggéey ndey nag danoo judd ci ndaanaan ndax man sama maam sayit mbaay moo dëkk Loyen Mbaar te diggante Loyen Mbaar ak Mbul ak njaxeer kër Linguère gi sama maamu jigéen dëkk benn la ak àndulaay gi sama baay dëkk mhm. sama baay nag moom sëriñ Touba rek la daan tagg waaye waykat bu mag la woon bu ci Serigne Bamba mhm, mhm. waaye sama maam man sama maam yëpp ay ndaanaan lañ bu ne Malicoumba Dior Diegane Ndiaté man Dior Diegane Ndiaté sama maam jur dégeen njaate moo jur Seyid Mbaay Seyid Mbaay jur Faatu Mbaay Faatu Mbaay jur ma ajaratu Faatu Mbaay mi ci kër gi kon foo ma làmb rek ci woy man daj ma dëgg ma def ci nag jom ndax loo man it danga loo man ak loo doonu tam danga ci def fulla ak jom hmm. ginnaaw ba ma nekkee géwél piir nag géwél hmm. piir rek géwél hmm. maam mu ma am maam mu ma am rek buur yi la doon àndal ginnaaw ba loolu weesoo nag ma jàng ko bëgg ko ànd ak sama mag ju baax di sama yaay mooy ki na la maam Bamba ànd ak moom ay at. ba yàlla def mu jóge ci moom dem Sorano. Mm. Ah, marke nga waaw ki na laa njëkk àndal ñoom ñëpp aw naa aw naa mer xaar may ma jaaga. Mm. aw naa ajaratu daaru mbay sama mag yooyu ñoom soo dem man ñoom ñëpp aw naa leen. ñoom ñëpp ba nëgëni sii ku ciy def dara danga may woo ma ñëw aw la. Mm. ba nëgëni sii. ki na laam bu duggee studio. danaan day Fatou Ndiaye kaay aw. ma ñëw aw. ñoom ñëpp waaye moom nag damaa ànd ak moom ànd yu baree baree bare mm. féete moom teraanga bu ne mu def ko man moom daf may daaneel ma koy daaneel waaw loolu am de tax nga mën a man ay woyam rek laa bëgg suñu dajee dama ko naan woyal rek yow mm. woyal rek wax dëgg yàlla daf may woyloo sax barki dem tase nañ ci ngénte damaa ba may solo sax teyatuma ko ndax woykat mooy woy moo mooy woyloo woykat kii nag baayam alaaji Njaga Mbay mm. moom tam ñëpp xam nañ ko ndeysaan ñu dëkkoon ak moom fii ci Pikine ndeysaan mu ànd ak sama nijaay Mor lay mbaay mm. ñoom ñëpp ay ay dem nañ ndeysaan sama nijaay Mor lay daawul tàggoog njaga bay dëgg wax dëgg yàlla muy daanaan bu mag dama daan jekk ba yàgg ma dem këram mos naa dem këram këram bi ma séenee ñu ne ma mi ngi ci kaw terrasse bi bi bi ma ko jubee dafa jóg toog ndeysaan ma ne ko tonton de tey yow laa seet si mu ne ma loo bëgg ci kër gi rek da ko am mm. ñu nit ku baax nit ku dal gaw la bu dal mm. ndax géwél day dal géwél day teey géwél du ëppal géwél hmm. boo ko séenee rek muy ñëw da ngaa war a xam ne kii géwél la bu ñëwee toog nga xam ne kii géwél la hmm. bu waxee nga xam ne kii géwél la bu woyee nga xam ne géwél la te loolu nag mi ngi fi ba nëgëni mi ngi fi te du fi musa a jóg man foofu laa jaar ci ndaanaan hmm. sama yaay di sama baay man sama maam bi jur sama yaay bintu sekk sama sama sama baay mooy nijaayam nekk sama maami yaay mm-hmm. ma nekk fii yàlla may ma maama mbaay may séeg moom maama mbaay di sama nijaay mm-hmm. di sama lépp mm-hmm. doomam yii di samay di samay seen yaay ba pare di seen i foofu moom dañ fay ñëw ci kanam ndax euh, lu am solo la loo xam ne tubaarkàlla macha allah mook jamono ànd ak àddina te ngeen di ay mag ni nga ko waxee léegi di ay kilifa ba pare di ay bàyyi seen bopp xel ci anam anam yu bari ndax da ngeen bàyyi seen bopp xel ci seen carrière waaye ngeen bàyyi seen bopp xel ci way bi bàyyi seen bopp xel ci sëy bi ba pare bàyyi seen bopp xel ci njaboot gi ndax xamoon ngeen ni doomi mbër de su ko jàngal bëri ndax yàgg-yàgg des na ko ñam kon tubaarkàlla bala may ñëwaat foofu damay ñëw lu la dugal Sorano waa soraanoo nag bi may ànd ak noonu Kinelaan ànd ak moom ay ati at benn bis sax ma ne Njaay Sàmb mbuub boobu ñun ñaar ñooy aw Kinelaan waaye moom danaan jóge Sorano di ñëw di ko aw si benn bis ma ne ko Njaay Sàmb man damaa bëgg ñëw soraanoo mu ne ma ñëwal am nga fa place ñu koy foyee di ko foyee ba benn bis ma xëy rek dem Sorano Njaay Sàmb mbuub moo ma dugal Sorano ma fekk fa kër Giro ñoom ñëpp ñoom ñëpp ña nga ña nga ña nga àjjana yàlla nañ leen yeex a fekk amin amin amin ma ñëw Sorano fekk fa sama mag yooyu ma la limal léegi ñoom mm-hmm. ñëpp ñu accueillir ma wallaay dëgg bëgg ma fonk ma yëkkati ma ca kaw ma fekk fa ajartu ma jooja ñu ngi mu a woy lool dëgg bëgg ma lool jong ma lool njaay sàmm moom nekk mm-hmm. nekk càmmiñam mm-hmm. tudde ko doom ndeysaan moom it doomam bu takk jabar may ma njëkk mm. ma ñëw Sorano nag fekk fa sama mag yu baax yooyu ñu accueillir ma teg ma ci sama palaas ma nekk Sorano Sorano nag hmm. wax dëgg yàlla artiste bu ne war nga faa jaar ñu bari jaar nañ fa ñu bari ngi nii ñu bari sax danoo defe ni ñooñu jógeeguñ Sorano ba na gën waaye soraano fonctionnaire la dafa am retraite dëgg la waaye di nga fa nekk nekkin woo fa xam ne boo fa jógee sax toujours dañ naan rek mairie Sorano yi hmm, hmm. waaye Sorano de sunu kër dëgg ñu moom ko tubaarkal la macha allah te yàquñu fa dara. ma fekk fa sama mag yi ñu defar ko ba mu baax. loolu moom bu yóbbu Sorano. mën nañu xam ban way nga njëkk a way. Sorano nga xamante ni maanaam bala ngay dugg sax. Mhm. Sorano way bi nga njëkk a way. xam nga man avant may dem Sorano nag damaa génn kaset. nga génn kaset waaw. way ci maama Mbaye muy xalam léegi. Mhm. way ci doomi géwél laa. Mhm. way ci sama xarit. nu mu waaw way nga ma ci sax. waaw doomu géwél laa bi day sax boo tëggaatee <laughs> tëggaat nga ko way ma ci. waaw way naa barkalla te booba xaw ma ni. Mhm. woon dinaa doon animatrice. wallaay ba ñuy toog maag yow bis tey moo tax lu waay mën. Mhm. ci lu baax rek defal njaay ban way nga fa njëkk a way. bi ma génnee sama kaset ba booy yooyu woy way Serigne Fallou Baye Serigne Xabaan. Mhm. way ca sax xam na maam Mare Mbacke. way ca tubaarkalla waa kër Serigne Fallou yu baree bari soxna am Awa. way fa sëñ Takko way fa Cheikh Awa Balla. way fa Cheikh Oumy Mbacke way nag waa waa kër Serigne Fallou yëpp bëgg ma nag. ma daal di cay wayaat nag euh, euh, doomu géwél laa daal di cee way ab jaam day nungub dogal dogal ba dafa yëg si sunu baay ba dem baay mbay Jóob Sali ma way ko ndey Sali Jóob Dieng moom nga tudd léegi ministre de mm. macha allah léegi nag bi ma ñëwee soraanoo nag ñu ne ma déglu nañ sa woy yëpp waaye da ngay woy woy yu bees ma way fa jigéen ju baax na nga sëy tubarkalla tànday faatu bi nga duggee soraanoo li nga xamante ni macha allah mooy morso bi nga xam ne parce que nit dina way lu ko neex mm-hmm. loo xamante ni boo toogee sax moom ngay wayantu mhm. bi la ci gën a neex say way ban la way bi la gën a neex waaw woy bi nag moom xam nga <laughs> xam nga nit nag moom ndeysaan wax nga dëgg di woy am nga mm-hmm. woon boo xam ne moo la ci gën a neex gën a neex ndeysaan bi ma nekkee bi ma njëkkee way mm-hmm. dama woyoon woy boo xam ne dama ko woon sama xarit mm-hmm. muy nuñ may sa nuñ ma woy ko ali aram ko de njaay maa njërango nuñ may sa

ñaay ma ñarangoone nuñ may saa ma lay woo xaw ma neex na laam bilaay nuñ may sa lu mu am may ma caa ñu ne fu mu jëm yóbbu laa kii lu mu am may ma caa ñu ne fu mu jëm yóbbu laa ba ne ku mu am booleel maag moom ba mu xam ma maa la yoo di la woo xaw ma neex na laam déet boobu ndeysaan sama woy ci li ma gën a neex ci woy boobu ci la bokk ndeysaan parce que dafa nekk woyu xale hmm. waaw ba pare dafa am harmonie am harmonie ba pare ma woy ko sama xarit boo xam ne dama ko bëgg sama biir xol ndeysaan nuj lay ah, maa ngi koy nuyu bu baax laaj laaj ju baax la ndoy wéjj ndoy xaarkal la macha allah tan faatu mhm. sa digganteeg sa géer ñi personnalité yi mhm. soit ministre député yi ku mel ni Muxsinatu ku mel ni Ndeye Sali say nit daal sa digganteeg ñoom waaw man awma ay géer ay doomu ndey laa am mhm. ndax boo nekkee ci réew mi juddoo cim réew màgga cim réew am na ñoo judduwaale ndoo mhm. yàlla boole leen mhm. ndax bëgg a xaritoo sax taxul a xaritoo yàlla mooy dogal xarit keroog bi may def sama anniversaire dama ne leen man duma wàll yaan man li ma ñi ma am ñoom rek bu ñu ñëwee Sorano fees ndax dama ko lié ak ñoom ñu di sama xarit di samay doomu ndey bëgg ma seen biir xol mm-hmm. ku ci mel ni mus Musnatu Jaxate moom mu nga wax wax nga dëgg de ak a maa ak a maa bëgg ak fonk masata ma ca wërsëg wa càmmineel lingeer yi moom tam woyoon naa ko waaw ni ko musli na toom ñoo ngi lay ñaanal nga mm-hmm. yokk mu ne ma woy wi saf na ma mm-hmm. saf na samay bokk wallaay dëgg la teraanga bu ne mu defal ma ko defal la ko keroog ba may njëkk di teral hmm. daf ma ni weeru koor la woon mu ni damay teral benn taalibe Sëriñ Fàllu day ñëw ci man di ndogoo sama kër hmm. na ngeen ci ñëw hmm. daa di woo suñu xar yi suñu quelque xarit ñu ñëw ndaka ca booba man mii lay doon yaa nga ca woon mu woo gar woo awa numbe ndeysaan woo saala biige ñun ñëpp ñu daje fa keroog bi ñu demee ba dog rek jotti mhm. ñu naan ko waaye ana taalibe sëñ Fall bi daa egsegul mhm. mu ni kii mooy taalibe sëñ Fall bi muy man keroog damaa émotion bi daf maa jàpp ba ndoguma waaw lu ne defal nañ ma ko Sali Diop nekk sama xarit nekk sama doomu nday yaay Fat Mbacke mhm. sama ministre de la femme boobu nga xam ne moom comme ku fa turam yegg rek sama tur egg na fa dëgg la mooy Ndeye Sali Diop ak samay xarit ajartu fàddu kure mm. ali ko dégg Alassane maa nga mi ci riirum géej ali ma jigéen wej ji ndaw ak ajartu awu Jóob Ture ma lim mm. ak ndayaw mbay doroobe ak al ajaratu kumba faal mu alaaji ma faal ma dam mbàkke mm-hmm. bu ma limee samay xarit sax mm-hmm. du jeex waaye man yàlla boole na maa ngi nit ñoo xamante ne mm-hmm. sama digganteek ñoom géwél laa de su ma ñëwee ci ñoom it yëf géwél laay def waaye sama digganteek ñoom du géer ak géwél nit ak doomu ndeyam mbay wallaay njaay la tànday faatu dégg ngeen li mu wax awma ay giir xarit laa am ay doomi day laa am te nag tubaar tubaarkàlla muy dëgg ndax sa digganteeg nday sali kenn dootu ko nattableti waaye sa digganteeg moxsinatu kenn dootu ko nattableti sa digganteeg Pape Bool wallaay waaw ñëw ci tuuti xam nga man ni ma géer ni bëgge noonu la ma géwél yi bëgge su may seet sax dama naan ay xaritu géwél laa ëppale. ndeysaan ko yàlla yërëm. man xaritu géwél yi dañu maa bëgg. Mm-hmm. Pape Bool. Mm-hmm. dafa jóge tuubaa ñëw fii sama kër. Mm-hmm. may ngénte sama rakk bu jigéen woolu ko. fekk ma taseeg moom Touba soxna maam Marim di ngénte doomam sama doom ja may mbàkke mu ñëw fa toj ngénte la. ma ne ko yow de lu ma njëkk a xewle dinaa la woo. ndekk su ñaari maa mbokku ndey ak baay. ñun ñaa ñëpp ay ndende ndende la. ndeysaan billaay barke yonent bi joo dégg njaat sama maam Diop la sant. Mm. moom maamam kër Diop ñoo bokk baay. mu ñëw fii bëgg ma taasul na ma fu ne mm. woy fu ne bu toogee télévision mën lay commencé mën lay tëj. Mm. yàlla yàlla seeral ya xam. keroog bi mu génnee àdduna fekk ma Touba. man man man ci ñi ko mujjee gis ñu denc ko ci laa bokk. loolu loolu ma xam ne kóllëre gu yàlla boole sama diggante ak maa am yeneen i yoo xam ni dañu maa bëgg xoola alaaji Alsaan Mbay wallaay ci laa jëmoon yaayam mu bëgg ma lool ci laa jëmoon sa digganteek alo le griot de VIP mu bëgg muy waaj nag tubaarkàlla bis bu am maanaa bis bu am solo am fu la teg bëgg la fonk la tànday faatu sa digganteeg Alassane parce que foo waxee Alassane mu ne nday faatu sama ndey la nday faatu sama mag la sa digganteeg Alassane bëggante jàppante ay di ay bokk mhm. parce que man bu ma la bëggee danga koy xam. dëgg la Ndiaye. man sama xarit yi sax ku ci ne da xam sa turu xarit. Mm. Mm. sama benn xarit dama dëkk rek loolu la may wax. danaan ma ma sa xarit yëpp xam naa leen. Mm-hmm. ma ne ko te noonu lan la xamee. Mm. moom itam kenn gënu ko. dëkk rek Alsaan. ndeysaan. Alsaan Mbaye sama doom la. Mm-hmm. maa ko bëggal sama bopp. mu bëgg mu bëgg ma nag yëg ma. ndeysaan bu sañoon toujours maa ngi këram. wallaay dëgg la. xanaa xat-xati jamono ji rek. Mm-hmm. ak wéré di géeg yooyu rek waaye warumaa jóg ci moom mhm. ndax moom daf maa bëgg mooy suñu doom ju bari jom nag mhm. suñu doom ju bari teraanga wallaay suñu doom ju xam boppam suñu mhm. doom ju xam fu muy teg tànkam yàlla na ko yàlla fal ca amiin yaaka amiin yaaka bëgg ma lool gañ siri caam sama sang waaw waaw maalikumba joor dégg ndaati bëgg ma mm. ki ne Abdou sama xol la mm. jëre jëre rek la ñuy coro faal ah, coro sama xarit la suba rek waxante nañ téléphone sama xarit la Mori Mathia Ndar ak Mori ca Waalo Alipenda <laughs> Balla Bay ak maa bëgg ba ñëpp xam ko nag. ndeysaan maam samay ami d'enfance nag ku ci mel ni Astu Jeng mm-hmm. bu lee da bu bu buñ ma gisul rek xamal ne am na lu xew. ak Mbaacu Jeng rakam monsieur bu déggeen ko du ma daanu gille. Mm-hmm. ak Ndey Jeng rakam ñu bëgg ma lool. man damaa am ay mbokk yoo xamante ni samay mbokk nag ñoo ma gën a bëggati nag. dëgg la ni ma géer ñoo ñu bëggee. samay xaritu géwél bëgg ma ndax ñoom géwél sax ñun ñëpp ay mbokk lañ la géwél boo ci woy woy nga moroom wallaay mbaay ku ci mel ni nday astafaal dëgg la bu ubbee bala moo daaneel tudd ma mm-hmm. ak daba sëy sama doom ji nga xamante ni saa yu toogee ci télé bi ni taan day faatu njaay dëgg la waay dëgg la waay njaay ak sama doom ji nga mm-hmm. xamante ne baax lool bu toogee di ma fàttali yu yàgg yun àndoon yoo xam ne bu ko neex fàtte ko mm-hmm. moom yaayam Ayda Njaay Tuubaa moom moo ma bëgg moom kon nag man noonu ma géwéli bëggee samay mbokk noonu lañu ma bëgg ndeysaan damaa kontaan ci waa àdduna nday faatu kontaan ci waa àdduna am rakk joo xamante ni Sala Bigué Ndiaye Gambedi bu ko déggul xam nga ko muy communicateur traditionnel ñu ne yaay yaay magi Sala mm-hmm. yar ko mm-hmm. fexe ba def ko dara sa diggante ak Sala kooku sama frère lañoo bokk ndey ak baay sama yaay moom rek la am ci góor waaye waaye moom danaan su ma doon judduwaat. Mhm. day faatulaay bokkal ndey ak baay dara du ko sensé moom loolu lay wax moom. te man xam naa ne man saal bi moom a gënal sama bopp. Oh. dama koo bëgg ba bëgg Bécaye bëgg Lamine Thiam bëgg Modou Mbaye Garmi ñoom nga xam ne ñoom la bokkal général génération. Mhm. ak Alaaji Thiam. damaa bëgg Sall ba bëgg ay xaritam. Mhm. Alaaji Xaadim Sàmb bëgg lay Mbaye Peex dama koy woo. mën Mansour mbay nag sama diggante moom ku ne xam na ko saala bigee bu ñëwee ci biiri nit fekk gis day gëlëm mayit noonu dañ koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak njabootam ak mbooloo mu jëlit saala bigee amul morom ci réew ak a yaru ak a dal ñun suñu papa bay boo ma ne saali maag saala bigee sax ñoo ci fes nii damaa mos sa dem sëñ Abdoulatif di ko ziar sëñ Abdoulatif jenn mm. xalifab Cheikh Issa jenn bi mm-hmm. looy wax ci télé na leer na leer dëgg la ma ñëw nuyu ko ne ko man maay ndey faatu Ndiaye bintu sekkay sama maam Fatou Mbaye sama yaay mu ne ma ah sa sa sa famille du ay géwél lañ de waaye man gisuma ñëw mel ci nii nga mel di génn ay télé yooyu de ma ko waaw loolu la yàlla dogal ci man mm-hmm. waaye ñun suñu famille dañoo nekk géwél doon ko jàng ko waaye mosuñu ko fésal sama mm. yaay ngi nii du dem ngénte mm-hmm. du taxawaat du dem seen di waya mm-hmm. loolu nag la saal bi gemel mm-hmm. bu dul woon woy yi ak wax yi bu nu fekkee ñu toog sax ay géer la ñuy teg parce que du du question géwél laa rek nag mm. ba tax na nag dangaa war saa yoo xëyee rek di fill fillee ka déj déj ñu naan géwél baa nga dëgg léegi si valeuru géwél day waaj a wàcc de waaye du wàcc ndax ña doon géwél mm. ba naka ni boo waxeek ñoom ñu xam ne kii doon buur géwél léegi nag lu ne naaw na wuti géwél mm-hmm. géer gi naaw na wuti géwél ku dul géwél naaw na wuti géwél mm-hmm. lu ne naaw na wuti géwél waaye géwél yaa ngi toog doon géwél rek mm. te ci loolu nag la ñu bëgg a sax ba yàlla duñu jël yàlla na yeex ci loolu xalamkat bi xool kii ni mu yaroo tubaarkàlla waaw Pambay Pambay Pambay nii ni mu yaroo wallaay yaru lool njaga mbay jur ko wallaay bàyyam noonu la meloon wallaay dëgg la ndànk lay dox alaaj njaga dana dox ba egsi ci yow te doo xam ne mu ngi ñëw foofu dañ fay taxaw parce que dafa nekk lu am importance loo xam ne faaw message bi jàll bari na émission yu may def ci ëttu kër ndaanaan yi wax ji dinaa koy baamtu dama invité peex ñu toog di waxtaan mu ne ma ñun communicateurs yi dañoo bëgg a woo communicateurs yu ndaw yi toog waxtaanaat ak géwél yi ndax suñu suñu géwél gi am na ay naawtal yu naaw tàbbi ci bu njëkk ba moo mësaan a wax ne Ablaye Mbaye pexe ngi ñëw wala Mansour Mbaye ngi ñëw wala Garmee ngi ñëw wala extra dañ leen di fekk ci seeni oto jëli leen léegi dañuy topp géer ñi ba ci seen buntu oto ñuy yàkkamte di yéegalaat seeni verre ndax bañ ko xotti seen baatu mbubu ba tasaale loxo kooka ma bëgg nga insister foofu nan la géwél bu baax bu riche war a tànday faatu ngoy may ku toog mayu la bu jógee du la may koo bokkal ni jataay mu toog li mu yore joxula ko boo ko jógee dab ko du la ko jox damaa mësa dem ci benn dëj yàggul ñu toog benn nit ñëw jaal bay dem géey lu topp ko mu ni ma nii man ko man mu ne ma waaw man ko man damaa rus a jóg ma ne ko man damaa rus a jóg instant ma kaay. Hmm. bi may jóg maa ngi loxo moom dafa teel a xam ni sax. woo na ma waaye woo bi ma woo. gënalu la gënalu ma. te xam naa ni gëj na maa gis te amel na ma bor bu ma war a jox. damaa jóg taxaw rek damaa dox tuuti rek mu làmb poosam daa di ma koy teel a jox bi ma koy nangu damay lox loolu mooy yàq na senegal hmm. dëj boo dem. bu dëj ba tasee xale yëpp topp nan la topp nan génn wallaahi barka inanti ku ni salaamaaleykum doo xam looy nuyoo insister foofu insister gis nga nit ñi sax léegi si patron yi sax kilifa yu mag yi sax dañoo dematul fenn wallaahi ndax boo waxee ñu ni géwél insister te nag lu ñu ay géwél de ñay def loola insister foofu xam naa daal réew mi daal war na noo seetaat suñ bopp mhm. bala may bëgg dee nag ñu naan mhm. di toog muy dox xaw ma di toog muy dox am na benn terme bu nu commencé wax. Mm, mm, mm. kenn toogul muy dox. déedéet. kenn toogul muy dox. toog muy dox day du barkeel may. ñun toogunu muy dox. laay laay li laay ndax bu suñu géer xewlee. Mm-hmm. dañuy dem dimbali ko ci suñu doole. yëkkati suñu ndawtal jox ko. bu dee suñu taraanga ñu yëkkati ko jox ko. ba pare sol suñu mbubb yiw defaru ba jekk ñëw di ko waxal. te loolu yàgg na ci buur yi. dëgg la buur bi fu mu sa toog rek yónni na géwél mu wax. chef bu fi mu toog ànd naa géwél mu koy wax képp koo xamante ni mus ngaa toog ci réew mi doon fi dara dara dara den ngaa ko géwél dëgg la waaye nag àdduna léegi moom danoo bëgg a jël géwél yi rek wallaahi tudde nu tudde xamante ne ci ci internet bi kuy nit ku baax rek boo ko dégloo sa xol tàng sa xol tàng dëgg la te ñun nag meluñu noonu bu ñu kenn dëkkal foofu ñun tooguñu muy dox ndax dañuy taxaw di la woyal bu dee dan laa war a woyal di la woyal di la waxal lu baax di la animel sa bis di la toog fay la say gan ba sa bis baax kon kooku toogul muy dox bu nuy ñibbis suñu kër mhm. dañuy sonn dañuy amu ñaq ba du nu man dara loolu mooy suñu liggéey loolu lañu yàlla cëree noonu koy def kon nag loolu liggéey la boo xamante ne ci réew mi la bokk mhm. kon tooguñu muy dox mhm. nañu bàyyi loolu àdduna bi ku fi nekk xam sa valeur xam sa bopp kenn du la yab nga yaakaar ne nag lan mooy solution bi nan la géwél yi war a taxaw def dal dal man nit bis seen nit projet ci ne man day faatu yéen du ngeen wëttante ci seen biir ngeen waxtaan da ngay gis koo xamante ni sax daawul wax waaye bu xëyee day tëj këram sol mbubbam puudaru muy góor muy jigéen la daal di nag bëgg rek yoru saw làmmiñ di wax ne sax wax joo xamante ne foo daanele mu ne tubaarkaal billaahi barke yonent wax ji war nañ koo sàmm ay laa illallah yaay waaji hmm. yaay ponkal mi yaay nangam li yow yaay lii yaay lii yaay lii yaay lii wax ko nit maa ngi lay naan la tubaarkaal la ci suuf te doo ko dégg wallaay dëgg la njaay nit day wax wax bu yiw man ngaa wax nit lu baax man nga koo tagg man nga koo jox ay wax ay yi mu def te doo ko catu wallaay dëgg la waaye jàpp nit samp ko salaama yi wala lu ko dal yow la nan mm, mm. leen seetaat sunu bopp te seet wax te jàngi wax te ci ci manta wax ñu noppi di bàyyi ñi man a wax ñu wax dee góoma de ñu noppi bàyyi ñi war a wax ñu wax ba tey damay insister foofu li mu wax dëgg la bu njëkk ba giir da ko daan tiim di ko taggali maamam naawtal yi ci dugg ñoo jàngul maami kenn waaw catu dong la ñu jàng tànday faat da ngay insister foofu de boo santee Jóob ñu daal lay dëkkal kan Lat Joor léeg na nga tasi cee géer gu am fulla goo xam ne boo ko taggee mën la dëkkuma foofu waaye léeg la nga toog ci koo xam ne yoonam nekkul xamul boppam wallaay wallaay bu dee faal nga sant ñu daal lay dëkkal fu la neex faal yi sax moom dafa yaatu mm-hmm. ndax boo xisee ba dëkk kër maa jooju dëggeen kodd mm-hmm. dafa dafa law faal dafa yaatu mm-hmm. jóob dafa yaatu dëgg la waaye nag ku ne boo koy wax danga nga koy dat dat ca maam jamu doon wallaay xam nga bu may tagg ndey Sëli Diop rek tëgg daa ko la jooray sa maam xaw ma nan ak nan loolu du noonu. déedéet da nga ko naan Baye Mbaye Diop Sëley sa baay Makhtar Diop ay baayam Gumba Diop ay baayam Téemour bi tuuti ay baayam Mademba Numbe ay baayam. kulu gànna ak sopp gànna ak saamaan gànna mbañ gànnam leel kulu koddu nguy ndaw barget ma ngoonem xel ay sa taak koddu sàmbaak faat maak ma koy jaag joor ñoo xam ni kii da koo xam di ko way laa ilaaha illallaah tabaarkalla nga dem ca musli jaxate di koy togg ni ko sa baay waaw sama waa ji xaalima du maxtaar ma xuja saala asan maram saala gay sangu njur xuja si la alsaan kumbam sëgg jee yéri tàkko caam ay meeru tàkko caam laamin yoro musa farima ta jeng ceddo ba amar ka ba jaaxan ka baay maama ay dagay fan njaay coro ma sila sayda ak fatim sayda sayda kumba sall birima ma jigéen maar may sa seleeg ma jooja anta kumba ak birima fatim bisis ma sàmbi waali jëleen biram jéeme kumba buur moo xam ne lii nga koy wax ay maama sama yaram waaye ñëw wax lu la neex. waaw catu ki rek. yore saw làmmet. naan ko yaa man yaa ay ah, yaa xaw ma lan man xale li ne wax sa mënuma man day bay duñu saf do ay rappeur. ah nanu seetaan àdduna bi nag ñun nag géwéli nag. Mm-hmm. danoo war a am sunu fulla nag ak sunu fayda ci réew mi nag. ah ndax yab nan nu. Ah. ñun ñuy dëkkal fu nu dëkkul. la wax lii dina wax lu nu naqari. dëgg la te lu ci bari nag ñoo ko teg suñu bopp. Mm. nit fuñ ko wóoyul bu mu fa dem. Mm. loo nekk nekk géwél buñ la woowul bul dem toogal wërsëg boo ko waree jot rek di nga ko jot mbaa boo sawaree ba di ca dem sax da nga bëgg ambiance wala nga dem dàq dàq ji stress wala nga bëgg a génn boo demee dalal man léeg-léeg damay gis xale ca ginnaaw laay toog ndeysaan sama jàkku doon dem ma o oh. laa ilaaha illallaah ndeysaan mun ma saan di way lan la hmm. dellu ca ginnaaw ca ginnaaw lay dem moom waaye li ci réew mi ñoom sax jéemu noo woy jéemu ñoo wut jàngi maam jéemu ñu dara ñoom daal catuwaate rek lañ nekkee ci réew dafa am woyuñ ne woyu buur géwél piir nag du ko def waaw lu waraloon ñu daan woyal génn ñeer dàkke fu ma yendoo di la waxtaane doo fa bëgg naa nga laal ci tuuti nag doo xam nga géer hmm. ndeysaan fu mu yendu nag di wéy <laughs> géwélam du fa ñaaw nag xam nga fii ñuy toog hmm. ñii ñu toog di leen tudd ñoom nekkuñu fi hmm. waaye duñ fi dëgg la loolu mooy yeddaake ndeysaan far yaddaake far yaddaake fu ma yet di la waxtaane doo fa ñaaye waaw billaay doomi lingeer oo oh, doomi lingeer nga ndeysaan fu ma yedd di la waxtaane doo fa ñaaye ndeysaan laay laay li laa cey Seyda bu gay Touré waaw waaw lat coro buuna Omar bu yo buuna wala wala bee lalam du jëndee caam Seynabo ajaratu Seynabu koy Touré dëgg la sama xarit nga ndeysaan Seynabu koy Touré mu ndeyloo da aslo na dembaleen mbaare Seynabu koy mu Jeynaba Jeynaba Kebe waaw waaw Seynabou Gaye Touré bu guddee way wi ñibbi maakal sa kër maam maam moo ma jigéen saaxo jooje mbay biram Yaasin Jaara Njaay Seynabou Gaye Touré Seynabou Gaye Touré waaw waaw ma ni mbaakol sama waajange ndeysaan ndeysaan ajaratu Xadi Faal Njaay sama maam ya dundu daw dani jeex ganjol ganjol be sama maam dugg waa njaam yaa bari waaw waaw yaay lañ jëbee Abidjan indi ko Sénégal yóbbu ko Touba jébbal ko Serigne Touba. ma dem Mbàkke sëñ Modou Mamoun laay jooyee Khady Fall Ndiaye. géwél yaa ko moom te xalam gi yaay boroom. madame Mbacké madame Mbacké sama xarit nga waaw waaw ndeysaan fu ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaaw fu ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaaw waaw lañ daan woyal géer géwél bi tiim la di la woy te du la agressé du la grincé mm. tan day faatu macha allah ñu ngi ci lu am solo. wallaay mbay. defaraat toogaay. Mhm. fi lañu ko fekk. te doomu aadama dañuy wax ne àddina weeru koor la fekk jant sowul juubu du wees. dëgg la te lii ñu fi waxtaane macha allah tabaarakallah day dëgg. Mhm. te bu géwél yi taxawee bëgg a relever bëgg ko fee dindi dañoo dem ba xàmmeetuñu génn ñi xàmmeetuñu géwél yi. Mhm. xàmmeetuñu tagg nit wax ko lu baax ak catu ko. dëgg dañuy gis chef de l'état yi ku ci falu da leen daan woo yéen géwél yi mm-hmm. ngeen daje def ay nduróole mm-hmm. taxaw woyal ko lu neex defal ngeen ko président Macky Sall waaw waaw mën nañoo dugg foofu tuuti defal nañ ko président Macky Sall Samba Mariam Boro Boro Ceddu Jéeri ndeysaan defal nañ ko président Abdou Diouf Abdou Diouf ndeysaan man biñ koy defal président Abdou Diouf lay soog ñëw Sorano ndeysaan bi ma bindee lettre di ma jox ordre national ordre de mérite mm-hmm. dañ ma ko jox muy laaj dëkk bi tubaarkalla macha allah président Ablaye Wade gagné ko. lettre boobu man sama ordre national de mérite bi fi laa ko bàyyi woon sax ci salle bi. ndeysaan président Ablaye Wade moo moom ko jox. ama ki ñëw nag. Hmm. ah macha allah nag nag nag du ngeen ma ko gën a man hmm, hmm. may nañu ay paase màkk. may nañu ay teraanga. lépp kenn du ko wax. dëgg ñu nekk ay géwél yoo xam ne nag sama mag yu am maanaay yi ci réew mi hmm. dama naa leen yéen bu leen neexee sax ngeen sol ay mbubu yu oyof di dem jekk ngeen ba pare wallaay njaay dëgg la président defal nañ leen lu ne hmm. fu ñu mus a toog ñoom la ñuy dendal sama nijaay mën sóor mbay yàqul dara wallaay njaay loolu mooy ngéwél wallaay njaay tànday faatu waaw tabaarkàlla tànday faatu nag waaw télévision bu mag bi ñuy wax la 7TV ajaratu nday faatu njaay maam Ndeye Fatou njaay maama ndeysaan. maama waaw. maama ndeysaan. il faut mu ci ànd loolu dafa am ajaratu Ndeye Fatou Ndiaye maama saan sa yaram yi sax a ngi daw dinañ dugg foofu nag ci xale yi. Mm. ñu defaraat seen toogaay. Mm-hmm. parce que lii nga wax ngor la kóllëre la daan Ndeye Fatou Ndiaye maama. Mm-hmm. lii nag la télévision bu mag bi ñu naan laa 7TV mm. la télé qui nous ressemble et nous ressemble. Mm. bi ñuy nduru ba noppi te duñ dajale. ba mu defee la émission bu mag bi di ëttu kër ndaanaan yi hmm. lii warga la yaay lee di naanaa lii di suukar la ñu teg ne gerte gi hmm. indi démb rek waaw warga wi nag dafa war a am tur waaw tubaarkàlla war a am sponsor hmm. ñu ne tubaarkàlla nag ah bëgg nañ nga jàpp ci nag war naa am marraine ni tamit waaw bëgg nañ ni ministre de la femme doon ma ne marraine mooy marraine bi mooy bàjjen waaye déggal lii da ngay jël bàjjan bi waaw muy marraine bi nga jox ko Ndeye Sëli Diop Dieng incha allah moom émission bi mooy doon bàjjenam rek bu neexee yàlla sponsor bi waaw dama lay wol sama xarit bu baax mhm. muy ndey tabaski caam borom villa ras muy ko sponsoré saa yooyu ñëw waaw mu koy defar tubaarkàlla dinaa ko wax di nga ko ko wax dégg loolu day ah, kooku kooku mooy mhm. taba ndey tabaski caam borom villa racine tubaarkàlla sama xarit bu am maanaa bi ku xool suñu ataaya ji nag xam ne warga nañu waaw warga nañu tubaarkàlla ataaya wu neex bés booy xel li ngay bés macha allah waaw tubaarkàlla macha allah mhm. ataaya ji nag xam ngeen ne ataaya géwél la waaw ak ak riis gis ngeen ko nii niñ ma ko fuuralalee gis nga na mu fuure laay laay la tubaarkàlla macha allah ñu war a suukar nag war ko xelli may ci caméraman yi may ci Alassane Mbaye waaw waaw de VIP yi may ci maane borom le 28 may ci maane mbaay <laughs> macha allah ah may ko ci ñu war koo suukar nag tubaarkàlla may ci may mun a may ci may mën a fay falaa laa jëm day mën a nduur fay moom moomu kii mi fa jëm kii macha allah fa jëm journaliste bu bu tàng bi journaliste mag bi ci mi nga xam ne góor yàbb ko tubaarkàlla day def ba mu baax ndeysaan nga ko bañ a sax waaw waaw daan day faatu njaay mama waaw ah tey ëttu kër ndaanaan yi dikk na sa kër de tubaarkàlla macha allah. lay ñëw nañ fi. waaw waaw kontaan lool. parce que yéen ko koo ataaye rek. sama xol sedd na ci. warga wi nag. Mm. fexe leen mu am tur dina am tur. amagul tur de. lee ma am tur. warga wi na am tur. <laughs> sponsor yi dugg si leen. waaw. ataaye tubaarkàlla macha allah dinaa daan naa dégg sax ñu naan. Mm. mag ñi buñ mësaan a bëgg wéttal. Mm-hmm. dañ naan taalal ataaya. waaw boo taalee ñëpp ñëw. boo taalee ñëpp ñëw say xarit toog ay xaritam ñëw say xarit toog ay xaritam ñëw. Mm-hmm. tubaarkàlla kon nag. waaw man kaas bi may may xelli. Mm-hmm. ginnaaw bu ma defee kaasu ndey Sali Diop. waaw damay def kaasu may mën a waaw waaw. def kaasu Alassane Mbaye. waaw waaw. ba pare nag doo ko def. kaasu Ndeye Tabaski Thiam. waaw waaw. ma bëgg mu sponsorisé bi nga bëgg mu sponsorisé ko. mooy borom Villa Racine. waaw waaw. macha allah barkalla allah. lii daal la eh, la la la concept bi di demee tànday Fatou Ndiaye macha allah gis nga ko ni tur wi rek la ñuy xaar nag léegi lii judd na ba noppi waaye nag gaaw leen ci tur wi xam nga ni ni ma neexee boo amee weneenum tur tubaarkal la hmm, macha allah hmm? tànday Fatou ñu ñëwaat ak yow macha allah hmm, xale yi yéen mag ñi da ngeen a sëy ba borom kër yi dem àjjana waaw ngeen topp ca mm-hmm. di defar xale yi nan lañ war a defaraate seen toogaay waa xale yi nag moom nañ xool ci mag ñi rek mm-hmm. ndax ku ne am nga ko war a toppandoo moo tax ñun mm-hmm. li naan artist sañu la def lu dul noonu ndax ña lay toppandoo kon nag nan lu toppandoo ba ci sëy yi dëgg la yàlla may la sa nawle muy sa mbokk nga di ko sëyal wallaahi dangaa war toog rek mu metti ngay muñ dëgg la ñu de loolu la ñu sant wallaahi njaay ñun suñu yaay mii hmm. nga xam ne ndey dafa am doole ci sëy hmm. dooni dara may metti déedéet dooni sama jëkkër tooñ na ma déedéet ku ci ne fa nga ne da nga fay toog sëy ndax aar bi bu mu la jaral ba a sëy ndax bu la jëralee ba ñu sëy da ngay dem ba di ko rëccu. fekk na rëccu wees la Ndiaye. man de maama Mbaye bu ñëwaatoo mm. bu toogee ci kaw ma toog ci suuf.